Ah, euh, kuréel goo xamante ni ñi ngi koy wax CIMAD euh, CIMAD moom mooy lan. synergie de marchands di ambulant pour le développement. ñu ngi lay nuyu dalal la jàmm. Ah, merci euh, Binta Adja Binta ñu ngi lay fay tamit. di la remercier dalal bi ngi dalal. voilà mm. alors euh, balaa ñuy door émission bi il faut que ma am loo xamante ni euh, dama ko bëgg wax ñu indi ko ci ay leeral ndax nag dafa am loo xamante ni dafa xew fële ca Walfadjri ki nga xamante ni mooy directeur ba di Moustapha Diop ànd ak kenn ci ay journalistam ñu toog. Euh, yor turu alaaji Assane Gueye mi nga xamante ni mooy suñu directeur fële ca rajo ba lu ne ñu yëkkati ko teg ko ci kawam ci lu ñaaw defe naa ne loolu waru leen kii di Moustapha Diop moom dafa di journaliste boo xamante ni dañu am respect euh, ci moom ndax bi ñu bi ñu déggee kàddu yi woo naa alaaji Assane laaj ko ma ne ko xanaa dafa am loo waxanteeg Moustapha Diop mu ne ma man kay Adja Binta xam nga ne man séquma ak ñëpp lu jàmm rek mm-hmm. euh, waaye nag ñoom loolu ñu def du lu rafet ndax bu ñu toogee naan alaaji Assane jàngul Alaaji Assane déggul français Alaaji Assane est-ce que journaliste la daloon tàggee ca ca dunia wax ko ñëpp toog di leen dégg def nañu lu ñaaw a ñaaw naan ku ku jàngul moom la président de la république woo jox ko li nga xamante ne moom mooy interview loolu waroon nañ koo jomba wax ndax Alaaji Assane ku ko xam-xam ne université lettres moderne la génnee am maitrise en anglais bu kenn liggéeyul la door ca dunia ba tey ñu jaar wal fajri mu yoroon ma fa ak man ak ñu mel ni man te kenn du ñu jéppiwuñu ci journalisme moom itam kenn jéppiwu ko du makki Sall rek moo ko mës a woo def ak moom interview Abdoulaye Wade woon na ko président bu fi jaar woon na ko kon bu mu woon dara wala xamul dara kenn du ko woo ne ko kaay wax Alaaji Assane kenn jéppiwu ko ci Sénégal ñi toog yi nag yor seen télé di wax nañu tànn keneen wax ci moom lu ñaaw waaye du Alaaji Assane man du ma jël combat wu kenn mais Alaaji Assane kenn la si ñun sénégalais yi dañ ko leen jël dugal leen seen si biir xol seen biir xol kon bokk nañu bàyyi lu ñaaw li ñuy defante ñun journaliste yi ndax liy juddu temps yi fan yi ñu gis ko ñuy xeexante di lekkante suñu biir bu arrêté wul yaakaar naa ne fu ñaaw leen ñuy dégg politiciens yi noo moomoon loolu lu tax ñu war ñu mën a diviser ba ñu war a toog ku mel ni Alaaji Assane Gueye nga xam ne kenn mësu koo dégg su lu ñaaw ñu nekk di yàq deram di ko wax loo xam ne naka sudul noonu mbir mi nag na dakk Alaaji Assane du tontu kenn waaye ku mel ni man man moom maay jël xeex bi téye ko ci sama loxo ku ko waxati dara dinaa ko defanteeg yow da yor seen micro seen télé waxanteeg moom lu ñaaw ma ñëw nag yor sama micro man fii wax leen nag lii fas la yan yan bi ñëwagul fu nekk nag mun nañu faa toog yeggali xeex bi bu ngeen dawul du ma daw am ànda amba en arrière yéen xam ngeen bu baax kan mooy Binta Diallo na ngeen bàyyi alaaji asa ndax du seen morom du seen màppandoo du seen maas seeda yàlla ndax ba muy jaar wal fajiri bu fa bu fa defoon lu ñaaw yéen tey du ngeen fa toog ba war mun a wax waaw kay loolu rek laa bëggoon wax nag pour avertise leen alaaji Assane du seen morom alaaji Assane sequl ak yéen ay wax yi sew na ngeen ko bàyyi tout tranquillement alaaji Assane du leen mës a tontu waaye ku mel ni man dina jàkkaarloog yéen defanteeg yéen ba mu neex ndax nag Sénégal léegi defe naa ci loolu lañ toll. maa ngi nag gërëm ñëpp si wax ji nga xamante ne yëkkati naa ko bu dee wax naa fi lu ëpp maa ngi jéggalu ñëpp. waaye Alaaji Assane dafa bokk si ñun bokk ci sénégalais yi képp koo xam ne yëkkati nga kàddu bu ñaaw teg ko ci kawam di nga ko defanteek ñun wala ku man ak ku mel ni man ba mu saf sàpp ndax nag journaliste yi yéegi dafa am ñoo xam ne dañoo teggi ndawal te dinañ leen wan nag kuy teggi ndawal ni naka lañ lay naka la ñuy defanteeg yéen li ngeen def ëpp na Moustapha Diop yow dama laa respecté nga respecté ma ndax keroog ba ma waxee sama opinion ci Sonko biñ may attaqué dangaa génn def vidéo wax lu baax ci man falaa la nawee ba léegi maa ngi lay continuer di la naw nag ba léegi mais say journalistes yooyu xaw ma ay journalistes xaw ma duñu ay journalistes na nga leen yamale bu ngeen amee ku ngeen di critiquer ngeen xool ko feneen bu critiquer leen ko mais Alaaji Assane moom na ngeen ko cëppee bés ni ki tey falaa yam a génn ak set di jéggalu ñëpp maa ngi lay nuyuwaat.